mbiru mairie Dakar di ñaawlu bu baax a baax a baax taxawaayu état du Sénégal parce que mairie de Dakar budget wu mairie de Dakar nekkul budget bu ñuy voté ci assemblée nationale comme ay ministère lu ñu leen di voté seen ay budget wala ay institution lu ñu leen di voté seen ay budget moo xam assemblée nationale wala présidence de la république wala ay haut conseil de la république budget ville de Dakar ci gàttal yéene la ñuy am yaakaar lañuy am que fii la ñuy jëlee ay taxes pour mën dajale taxes yooyu yëpp pour que loolu mën a doon lu ñuy woy budget de la ville de Dakar budget boobu nag luñ ci ñaawlu dafa am benn taxe bu ñuy wooyee CELVA mooy contribution économique locale valeur ajoutée ku ne valeur ajoutée rek yaa ngi wax waxu TVA ñëpp xam nañ que TVA daanaka ci ay gox yu am ay activité économique foofu lu ñu mën a amee TVA doo nekk ci diggu àll bi dafa am TVA mënul nekk selveya boobu daaw daaw laa wax daaw te yàggul ville de Dakar mi ngi jot trois milliards cent millions ci selveya boobu parce que quatre-vingt-quinze pour cent wu taxe boobu fii biir Dakar lañ koy dajale te agent yuy dajalee taxe boobu ñoom ñëpp ay agent wu ville de Dakar la ville de Dakar leen di fay ñoom nag ñuy liggéey perception de Dakar ren nag ñu ne ñoom dañuy jógee 3 milliards 100 millions wàcc ba 55 millions nekk dañ koy baaxee waa ville de Dakar ma ne wax dëgg yàlla lii du jaay doole lii du yabeel lii du maa tey lii mooy lu ñuy wooye ñàkk gëm yàlla nit ki nag soo jeexalee da dangay ànd ak ngor soo jeexalee da ngay dem a rafetal lii yëpp jaru ko lu may ñaawlu man ba may egsi mairie de Dakar deux mille vingt et la woon pour won leen nag nu ñuy xeexee ville de Dakar ci deux mille dix neuf ñoom ñu ngi baaxee waa ville de Dakar lu toll ci quatre milliards deux cent euh, quatre milliards trois cent vingt huit millions. deux mille vingt ñu jël loolu wàcce ko ba deux milliards cinq cent mille vingt et un ville de Dakar da doon am cinq milliards quatre cent quatre vingt millions ci même tax boobu xam ngeen entre parce que su waxee valeur ajoutée rek mooy daanaka lu fi yokk ci ay business moo xam ay restaurant moo xam ay hôtel moo xam ay salon de coiffure moo xam lépp fu ñit di fay TVA ñëpp d'accord nañ ko askanu Dakar mi ngi yokku kon askanu Dakar su nekkee di yokku mais à la kuli àll TVA yi day yokk ñoom nag 2022 ñu ne comme waa ji toog na ci mairie Dakar nañ ko jëlee 5 milliards wàcce ko indi ko 3 milliards mën na leen gongo du du du du du ñu tere liggéey ren nag. ñu ne dañ koy jëlee trois milliards cent vingt et un indi ko cinquante cinq millions loolu ma bëgg a wax ci leer loolu état su xoolaatulee taxawaayam dama bëgg a wax ak ndaw ñi surtout xale yi am ay bourse fii biir mairie de Dakar bourse bi ngi toll ci trois milliards mooy bourse ñuy fay fii ak bourse ñuy fay bitim réew loolu dina jafe lool ci mairie de Dakar pour ñu mën a honorer engagement yooyu ngeen xam ne ñu ngi leen di faj ci ay hôpitaux moo xam principal moo xam Fann moo xam CTO moo xam ñu ñuy ñu nga xam ne dañ leen di évacuer particulièrement Maroc biig rek maa ngi waxtaan téléphone ak directeur du hôpital bi muy dalal suma xel ci Moussa xale bu ñu évacué woon mooy xale bu jotoon ñàkk yaayam ak ñaari magam yu góor ñu évacué woon ko Maroc pour mu mën a am greffe de la peau mu ne ma Moussa alhamdulilah tey lay génn mais dalal xelam pour waxu ko mairie Dakar jël na ay dispositions sax pour ñu wutal ko appartement marok pour que période bu mënoon a toog Maroc def ay testam mu mën fa toog dans des conditions adéquates ak tantam waxuma sax ñu nga xam ne ni ñu ngeen di jox ay bon pharmacie ak ñu nga xam ne ni dañ ñun ñooy fay seen ay analyse ñoom tamit lii su ci état xolaatule taxawaayam dina jëfe lool pour mairie de Dakar di mën a continuer di honorer ay engagement maintenant nag du wax ci ay waxu ay ñu nga xam ne seen loxo jot seen loxo jot jotul seen ginnaaw ci mairie Dakar la ñu amee yaakaar pour mën a fayal seen doom yi ay école wala mën a fay seen ay lois wala ñoom seen daal ci gàttal mooy lu ñuy woowee les aides waxuma sax ay waxu tabaski korité Pâques ak ñoom seen mais loolu bëggoon wax ci leer lii nekkatul politique lii nekkatul xeex nit lii nekkatul xeex ville lii mooy lu ñuy woy sabotage ma bëggoon nag dalal xelu askan wi euh, ñun dañu fal ngir liggéey Dakar lu may ñaaru rek mooy lu ñu gaayee bëggee xañ yéene bu ñu am ci askanu dakaar parce que ba ñuy politique di campagne dañu wax ci waxu doomu aadama ñu dañuy jël doomu aadama sargal doomu aadama fonk doomu aadama yëkkati doomu aadama jàppale bépp doomu ndakaaru bu bëgg a jàng bu mën a dem jàngi bépp doomu aadama bu bëgg a faju ñu jàppale ko mën a faju bépp doomu aadama bu am xat-xat ñu mën ko dimbali ci xat-xatam ndax mu mën a dund ville de mën a yëg ville de Dakar man loolu lay ñaawlu